wala ma ne Serigne Cheikh Abdou Lahad Gaynde Fatma maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay euh, Serigne Djily di nuyu mboolem ñi nga nekkal di nuyu itam mboolem mbokk ñuy ñu déglu yëpp. di leen masaw di leen jaajëfal. Euh, jërëjëf euh, Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaynde Fatma euh, yow nga nekk ministre conseil dëkk fi nga xamante ni moom mooy Touba ñu toll jamono joo xamante ni ci àdduna bi yëpp actualité bi benn la muy mbirum woppi coronavirus yow bi nga ko déggee ci àdduna bi déggandoo ko ak ñëpp mu daal di commencé law jóge Chine di dem ci yeneen réew yi. Euh, lan moo ci sa nekkoon sa sa xalaat bi nga ko njëkkee dégg ak ni muy lawee ak ni muy rayee ci ay nit. waaw xam nga moom accident moom ñun ñëpp ñoo ko ñoo ko doon déggandoo. waaye booba xam nga wax yi def ci bari woon te kenn ñun koo xam ne xañ na defoon na ci ay gëstu ba xam jàngoro gi ni mu demee dëggantaan booba ñu bari li ñu wax rek mooy jàngoro ji du accès Afrique jàngoro ji du rey nit ku ñuul ay ay rumeur yu bëree bëree bari mais ay rumeur yoo xamante ne quand même c'est pas fondé waaye plus ñuy dem plus quand même euh, coow diggante di bari ñi mi dal diggante di bëri Euh, nag ba ba ñu xëy xëy rek mu nekk réalité ci suñu biir réew nekk bi ñëwee ci réew mi nag vraiment ci lañ xam ne kër lii nag du du ay caaxaan kenn ku nekk nag euh, xam lan mooy vraiment danger bi nga xamante ne mi ngi ci biir jàngoro ji ci boobu nag ci lañ ci nag nañ ci jóg nag taxaw ci kenn ku nekk nag bay ci bay ci waaram ñu ñaan yàlla rek mu mu gën waat ko ci réew mi waaye au début moom ñun dañ ko jàpp woon jàngoro joo xam ne jàngoro yoo xam ne du ak fii la woon. d'accord ah, jërëjëf euh, Cheikh Abdou Lahad léegi euh, dikk na ci réew yu bare bari euh, ci àdduna bi. ci Afrique tamit am na réew yu bari yoo xamante ni laal na leen bi mu dikkee ci réewum Sénégal tamit gis nañ ne bi mu fi doog di dugg am na mesures yu bari yoo xamante ni jëluñu ko woon jëluñu woon état d'urgence bi tëjuñu woon frontières yi ba jàngoro ji dugg fi ndax yow bi mu fi dogg du dugg bokkoon nga si ñi xalaat ne war nañoo gaaw a jël ay mesures. Euh, waaw xam nga xam nga boo boo seetloo. dama koy wax moom ah, bi muy bi dugg ci réew mi nag wala sax na moom dugg ko fii xam moom boo jëlee ko mel ne si mu taxaw moom ci la commencé woon di wax. ndax bu ñu fàttalikoo ba bi njëkk a digle naan nañu nañ jàng ñaan boobu jàngul dugg ci réew mi. def na ko ñu toog lu ma juróomi fan jàngoro ji ñu soog annoncé ne dugg na ci réew mi sot ci wax euh, mais quand même développement bi ni mu ni mu ni mu demee ak ni mu ni mu gaawee euh, ci njëlbéen gi rek am na mesure yoo xam ne mënuñ ko woon a di ko di ko jël ah su dee quand moo tax nag riposte bi day nekk rek de manière graduelle foo xamante ne bii fa la toll nga xam ne way docteur yi. parce que actuellement nii ñoom la autorité di déglu ñoom xalaat buñ ci joxe conseiller ko ñi nga xam ne ñooy décideurs yi ñu soog a jël mesure yu yu mel noonu mais foog naa ne quand même li nga xam ne noonu lañ ko saytoo ba nëga ni jàpp naa ne am na succès parce que euh, ni mu lay lay wut lool lool lool ci biir réew mi donte kenn nit dong sax ëpp na li ci faatu ci biir réew mi itam bëreewut ni mu baree ci ci ay réew yu bari ba sax am ñoo xam ne ñu ngi jël exemple ci euh, ci Sénégal kon jàpp naa ne nañu nañ jàpp daal ne épidémie la boo xamante ne bii moo ëpp doole réew yu mag yi parce que épidémie boo xam te ne Chine te ne France te Italie te États-Unis Espagne réew yu mag yooyu yëpp foog naan suy réew yu ndaw yi xaju ci kon nag euh, jàpp naa ne daal ni nga xam ne noonu lañ koy saytoo ni nañu nañu sant yàlla ci li nga xam ne moom lañ ci jot a am te la gën a góor te dolee fagaru léegi euh, Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma li nga xam ne tamit euh, moom la ñëpp seetlu mooy réew yu bari ci àdduna bi jàngoro ji ba mu fa duggee benn semaine rek dangay dégg ñu ne ay junni nit ñaari junni nit ba mu yàgg ngay dégg ñu ne rey na fa ay junni nit te Sénégal ba fi commencé ba léegi ëpp na weer mais euh, soo xoolee euh, lim bi ci Afrique sax ñi mu fi rey bu doon kenn sax comme ni nga ko waxee bëri na mais bu dee Sénégal gi nañoo wax ne euh, par rapport yeneen réew yi bëriwul ndax yeneen réew yi benn semaine rek mu law ay junni junni ngay dégg mais Sénégal ba léegi dégg goo fi loolu maanaam jàngoro ji dafa du sonal nit ku ñuul wala wala yow lan moo si sa xalaat ci loolu. loolu. loolu loolu am na am na am na am na loo xam ne réalité la lii réalité moo di suñu kër docteur yi nii jàmbaare suñu fajkat yi kooku la quand même ah, jàmbaar lañ ci trop trop trop trop. mais est que est-ce est-ce que cheikh bi mën nañoo jàmbaar ba gën a jàmbaar wala ñu ëpp ay jumtukaay bitim réew. c'est c'est plusieurs facteurs dama ne la am na loo xam ne réalité la réalité mooy li nga xam ne ñun mën nañ ko teg suñu loxo li des ay hypothèse la ci la jëm si donc li nga xam ne mooy réalité bi. mooy suñu kër docteur yi li nga xam ne noonu la ñu góorgóorloo te te ñëpp nangul leen beneen réalité bi aussi moo di ne sensibilisation mag bi nga xamante ne bi aussi def nañ ko ci ak matuwaay yi nga xam ne aussi état bi jël na ko euh, am na am na yoo xam ne nag aussi euh, mooy euh, ay ay hypothèse la am na am na ñu ne ni waa Kirène bi nga xam ne doon nañ ko naan ñun ñëpp ci bi ñuy gone dimbale nañu ba xëy na jàngoro gi ni mu war a lawee lawee wuñu mais hypothèse la c'est pas encore prouvé scientifiquement. Euh, jeunesse su également population bi daf ci joué ndax boo xoolee boo demee en Europe mag ñi la gën sonal ndaw ñi sax comme ki daal ñaari dafay dafay wér fii aussi Sénégal boo xoolee euh, ci set des yi fi nekk yëpp kenn moo ci am cinquante cinq ans ñi des yëpp am nañ plus de soixante ans kon aussi day mel ne mag ñi lay sonal te boo xoolee fii population bi plus de soixante dix pour cent population bi ay ay ay ndaw lañu majeure partie ñu bi dal aussi ay euh, ay ndaw lañu. kon kon loolu aussi mën nañ ne facteur la boo xamante ne bi aussi quand même euh, joué na ci beneen bi nga xam ne euh, aussi am na solo jàngoro gi dañ lay wax ne da raxas foo toll yow en tant que jullit di nga di di nga jàpp juróomi yoon dans la journée loolu aussi munu munuñu wax ne amu ci amu ci incidence ah Sénégal aussi ni mu nekk dëkk boo xam ne dëkku kilifteef la nga xam ne aussi bu kilifa yi waxee danañ déglu ku mel ne si mun taxaatee bu taxawee jiitee euh, ab sensibilisation loola faaw mu def effet ak nag ñaan yi nga xam ne aussi suñu nit baax ñi ñu ngi koy ñu ngi koy ñaan donc facteurs yi yëpp foog naa boo ko boolee day jox Sénégal un certain nombre d'avantages boo xam ne meneen réew mu dul Sénégal man nga ne xañ na du ko du ko amee noonu. d'accord euh, léegi euh, bi nga xamante ni jàngoro ji dugg na Sénégal commencé fee law euh, gis nañ ki nga xam ne mooy njiitu mi di président Macky Sall woo ñi nga xamante ni ñoo nekk ci way politique yi woo société civile bi woo kilifa dina yi ñëpp mu woo leen euh, waxtaan ak ñoom ngir ñu bokk euh, xeex bi euh, woote boobu doonu yow sa gis-gis. ah non woote bi lu baax la moom moom moom mi woo def na lu baax. ñoom ñu koy joo si def nañ lu baax. parce que tey dañoo toll foo xamante ne bii mën nañ ne euh, benn Sénégal moo am benn noon la ñu am beneen benn intérêt la ñu am te boo xamee Sénégal aussi xam nañ ne am nañ quand même esprit de de dépassement. suñu leader politique aussi am nañ quand même niveau boo xamante ne permettre na leen ba ñu xàmmee lan mooy intérêt Sénégal ak lan mooy seen intérêt parti politique wala lan mooy seen intérêt personnel te heure bu intérêt Sénégal taxawee rek kenn ku nekk ñoom donc day day fàtte boppam donc lool moo sabab ba moom woo gi mu leen woo man lu ma rafetlu la te fonctionnaire bi yëpp ko rafetlu ñoom si wuy si gi ñu wuy si lu ñu rafetlu la te yëpp ñoo ko rafetlu ba tey jii vraiment ñi ngi nekk ñi ngi nekk benn euh, def def bloc loolu aussi ci facteur de réussite la bokk parce que tey bu fekkoon président dafa nekk fee di jël ay décision opposition bi nekk ci côté ba di sànni ay xeer di di di ko divertir du ñu am sérénité bi nga xamante ne bii aussi moom la ñu am ba mais mais comme on est tous dans le même sens ñun ñëpp mën naa ñoo bokkandoo xalaat ñun ñëpp ñooy yëkkateendoo ñoo ñoo jëfandoo loolu aussi bokk na ci li nga xamante ne bii aussi boo euh, tax suñu borom may ñu euh, may ñu ndam li nga xam amee ko nañ ko ci ci kaw jàngoro ji. mais encore une fois bu ñu bu ñu naagu. c' important. d' accord mais gis nañ tamit euh, bu paasee woote bi njiitu mi di président Macky Sall woote gis nañ tamit euh, xalif général des Mourides moom euh, su ma jumul bokk na si ñi njëkk a génne deux cent millions dugal ko ci force Covid 19 bi sëriñ bi appel boobu mu def tamit ak kuréel gi ñu teg ngir dajale xaalis ngir saafara jafe-jafe yi nga xamante ni Covid 19 bi dina ko indi ni gàllankoor yow lan moo ci sa xalaat. xam nga xam nga xam sax moom. Euh, bi muy génne xaalis bi booba booba force Covid 19 taxawagut avant avant avant ñu koy taxawal di di lancer un appel euh, au don ci la sëñ moom joxe joxe deux cent millions sëñ bi def na ko foog naa le mercredi ou le jeudi ñu dem ba ca ba ca ja ñu soog ko taxawal kon xam nga toujours dama ne la sëñ bi dafa am une longueur d'avance. Mhm. Ah, donc joxe joxe mu joxe aussi nag xirtal na. mboolem en tout cas ñi nga xamante ne bi aussi ñoom la yilif te sëñ bi tey kilifte fa même passé na xam ne ñoom su ko jëblu ci moom ndax képp kuy Sénégal rek jàpp nga ko kilifa donc wane na yoon woo xam ne yoon war rafet la kon xam nga loolu lu am solo la bon li ci des nag li ci des nag moom xam nga Sénégal moom day am yoo xam ne mënta mënta ñàkk seen ni mais mais mais mais li nga xam ne mooy li wér moo euh, bi lu lu baax la ndax permettre na ñu Sénégalais yi mobiliser wu dajale ci seen i wërsëg ndax dañuy wax ndimbal lañ fekk loxol borom bu ñu nee FMI jox nañu ay deux cent milliards banque mondiale cent trente huit BOAD BAD kenn ku nekk joxe ñu ne kat waaye nag xeetu Sénégal la ñu joxe ñu ne kat xeetu Sénégal ñoom yëkkat nañ tant milliards ñoom aussi def ko ci def ko ci fonds bi. le gouvernement également par des réajustements budgétaires également jël lu mat quatre cent milliards war na ko jege aussi def ko ci fonds kon day mel ne suñu ñàkk bopp moom moo ci jiitu loolu nag day wane aussi taxaw goo xam ne ak yitteel goo xam ne mbir mi yitteel na ko. nit ñi ak également xam bu ci xam importance xeex bi ñuy xeex lii xam ne kat mën naa faagaagal suñu économie mën naa faagaagal suñu suñu bakkat mën naa faagaagal suñu kon foog naa li am solo rek moo di tey jii ñu ñu xool foofu te te te rafet njort jàpp naa ne bon dina dina samay wax yu sew yoo xam ne peut-être mënut a mënut a ñàkk mais mais naa du nekk loo xamante ne vraiment ay wax yu yu am solo lay doon. d' accord léegi euh, li nga xamante ni tey mooy euh, comité de bi euh, pour xaalis bi teg nañu benn kuréel boo xamante ni tey général François Ndiaye moo ko jiite ngir saytu ko dugal nañ ci lu toll ci trente personnalités ñi ci ay ministères représentants assemblée nationale ak ay institutions société civile bi ak secteur privé bi ak ay association consommateur loolu ñu teg noonu ndax yow si sa gis-gis jàppoon ne avant que ñuy jënd soixante dix soixante neuf milliards di ko jëndee dund la lañ waroon teg comité bi ñenn ñi dañoo jàpp ne lañ waroon a njëkke njëkke wuñu ko yow lan moo ci sa gis-gis. non jënd non non non attends dañoo jël milliards. pour def ko ah, mais jëndaguñ ko jëndaguñ ko. li ñu li ñu li ñu jënd ci dund jéego sax loolu ça ça doit ko boo xam a xam xam nga xam nañu jël 64 milliards pour la santé. jël mhm. milliards euh, pour appui aux nécessités. Mhm. douze milliards pour diaspora bi. voilà donc enveloppe globale boobu mooy soixante neuf milliards. Mhm. ci biir soixante neuf milliards yooyu li nga xam ne mooy marché yi xam ne moo jàllagoon avant la mise en place du comité moo nekkoon marché riz bi. waaw marché boo ko xoolee boobu matutoon euh, matu sax trente boobu matu trente milliards. Mhm. kon bu ne dépensé nañ neuf milliards ba pare amul kenn koo xam ne également fayaguñ leen fayaguñ dara te loolu mënutoon a xaar. waaw maanaam li ma bëgg a wax. soixante neuf milliards yi li ma bëgg a wax soixante yi mooy. répartition bi nga xamante ni nee nañ soixante neuf milliards lii ak lii lañ siy def avant ñuy wax lii ak lii la ñuy def si soixante neuf milliards yi est-ce que boobu taxawal comité ñi wartoon njëkk si gis-gisu ñenn ñi. Euh, gis-gis la. gis-gis la mais mais mais mais aussi du comité de pilotage comité de suivi la. Hmm. c'est de pilotage bi moo am prérogative bu. daa lii ak lii ak lii nii la ñuy lii lañ ci jël. Hmm. Euh, euh, lancer marché yi attribuer ko réceptionner ko transporter ko livre maintenant comité de suivi bi lan mooy lan mooy liggéeyam mooy après moom bu dikkee xool processus boobu est-ce que respecté na norme bi nga xam ne moom la respecté est-ce que li ñu wax def nañ ko est-ce que li ñu def également sàmpoon na ak yoon est-ce que également li ñu def lenn lu nekk fa war dem dem na fa est-ce que dërëm bu ne fañ ne fa lañ ko dugal est-ce que dugal nañ ko foofu ba amagul lenn loo xamante ni maam waroon naa waroon naa am ñu def ko te moom taxawul waaye nag bés bi tey jii euh, dem bu koy séddal rek moom liggéeyam day daal di daal di commencé ah. Mhm. dem xool est-ce que lañ ne kat moom la ñuy yóbbu disons Bambey est-ce que yóbbu nañ ko mhm. est-ce que ñoom lañ ko war a jox. est-ce que ka doon livré la ma wax ne moom lay livré est-ce que livré na lu lu toll est-ce que li nga restitué lu toll est transporter la mission donc kenn ku nekk ci def ci enquête yu leer a leer ko ci ay kii gannaaw mu nekk des enquêtes sur le terrain après maintenant ñoom il faut ñoom ah. aussi nag maintenant ñu ñu euh, def seen rapport mais ñoom seen liggéey yéexagul parce que seen liggéey mi ngi soog mi ngi soog a tàmbali. mais mais jàpp nga ne yow euh, euh, xaalis bi bu ñu jëndee dund gi fayal nit ñi seen factures yi ak seen facture courant yi ak ndox yi jàpp nga ne loolu dina am njariñ ci dundu askan wi. askan woo xamante ah, ni ah, ma askan ah, askan woo xam ne marché yu bari tëj nañ ko ñu bari liggéeyatuñ. dina dina dina dina dina mënut a mënut a ñàkk am njariñ parce que tey jii. borom kër boo boo jox ñaari saaku ceeb jox ko diw jox ko pat jox ko suukar lu gàtt gàtt mën a jaa dund pendant un mois loolu amal na ko njëriñ du rëgg donc kon munuñ ne amul njëriñ am am na impact li nga xam ne kay xañ na moo moo moo dund impact mooy bu ko jëloon caxat caxatee ko ba kenn du ci am lu ko amal njëriñ waaye bu ñu sélectionné un million de ménages dal daanaka ménage bu nekk entre huit ak dix personnes dana fa nekk kon bu ñu joxee lii lu gàtt gàtt mën nañu toucher entre huit millions et dix millions de sénégalais en espérant que yeneen six millions de sénégalais ci des xaj na ajo wuñ ko soxla wuñ ko. léegi ñu nekkat fay nañ courant courant bi ñan lañ ko fayal képp koo xamante ne bii sa loxo jotu sa ginnaaw muy première tranche bi fayal leen ko à cent pour cent ñii des également nañ leen partie euh, partie boobu kon loolu aussi mënut a ñàkk njëriñ fay leen également ndox mi loolu aussi mënut a mënut a ñàkk njëriñ parce que loolu lépp ci poche ni ngi la waroon a génne dem kon am na xaalis boo xam ne économiser nañ leen ko kon loolu ñoom danañ ko mën a jël xañ na denc ko ngir beneen weer baa beneen weer bu fekkee mbir kon na wala jël ko également def ko kii faj ko seen yeneen seen yeneen yitte yoo xamante ne bii farata lay lay euh, lay nekk si ñoom mais je pense que ne mën a suñ ne amulul njëriñ nit ñi. parce que bu ñu dundalee pendant un mois pendant deux mois dix millions de Sénégalais loolu foog naa quand même effort bu bu considérable. jërëjëf euh, Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma ministre conseiller moom la ñu invité tey seen émission pencum réew mi ci rajo réew mi FM muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h euh, euh, Cheikh bi beneen laaj bi mooy lu jëm ci état d'urgence bi état d'urgence bi ñu décrété ko bañ ko décrété daal li nga xam ne mooy transport inter interurbain ñu dakkal ko bu 20 jotee ñëpp dem dem tëri ba ba ba 6h du matin. loolu yow lan moo si sa gis-gis ak ndax jàpp nga ne bokk na ci xeex bi loo xam ne tax na jamono ji mbir mi ni mu waroon a lawee ci réew mi lawee wu ko ci réew mi. non gis gaa gis nga ki nekk rek dafa dafa basé wu ci ay ay ay ay études scientifiques. te bu ñu xam ne Sénégal. nekkul jëkk jëkk rek cëpp ci àdduna si ne cunu moom tong Sénégal dafa bokk ci àdduna lëkkaloo ak yeneen réew yeneen réew yi ay nit dëkk fa taw di njëkk faa jaar ñoo ngi def ay ñoo ngi def ay gëstu gëstu yi am lu mu leen jox exemple la lay jox tey boo demee en France avant tawat gi dañ doon wax naan chaque malade dina wala en moyenne trois personnes ñu def euh, confinement daal ne léegi moyenne bi mooy zéro virgule six personnes maanaam dix malades yu ne six personnes la ñuy wàll au lieu de trente personnes mais écoutez ñu avant ñu def confinement bi euh, réanimation yëpp fees dell hôpital yëpp fees dell tey jii am na am na ay hôpitaux de campagne yoo xam ne ñu ngi koy euh, ñu ngi koy démantelé parce que soxlaatuñ ko ndax ndax réanimation bi léegi bari na ay postes yoo xam ne libre na nga xam ne kon loolu lu lu lu réel la parce que jàngoro bi du dox nit ñi ñoo koy transporter di ko joxante di ko wàllante di ko wàllante transport yi di ko wàllante ci marché yi di ko wàllante yi walante yi di ko wàllante yi ci supermarché yi di ko wàllante ci seen i seen ay jëflante kon day mel ne bu ñu fexee ba ba ba virus bi au moins diggante vingt heures ba six de du matin. nañu xam ne moom peut-être euh, bis bi bu nekkoon ñetti xaaj am na benn xaaj boo xam ne virus bi du circuler au moins virus bi waxtu woo na dina wàññeeku kon c'est sûr que ne am na effet te bi nga ko defee Touba gisoon nga résultat bi fii à Touba dem nañ ba kaay jeex takk waaye ay ñu indiscipliné jógee di jël ay oto di dem ak dikk ba tey ji mi ngi ni tey hôpital feesaat na ko donc kon kooku réalité la dafay réalité boo xoolee tey ñi mu dal ñi dal nga xool fan la ñu bokk mhm. ñu ci gën a bari ay nit la ñoo xam ne seen jëflante ak doomu aadama yi dafa bari ay commerçant la ñuy doon ay marchand ambulant la ñuy doon ay ay ay ay ay jeexkat soow la ñuy doon kooku aussi réalité la boo xam ne ñun ñëpp gis nañ ko fii ci dëkk par exemple bu ñu exemple Touba hmm. kon day mel ne ay jigéen la ñu doon aussi parce que jigéen ñi ñoo ñoom ñoo dem ci marché yi ñoom ñoo ëpp jëflante kon day mel ne képp koo xamante ni moo la ëpp lu muy jëflante ak ñeneen rek moo ëpp chance wu rattrapé jàngoro ji kon c'est sûr que bu ñu toogee rek suñu bor mën ñoo suturaal. d' accord léegi dana ñëw ci euh, kaw Touba mais cheikh bi euh, li nga xamante ni tey mooy marché yu bari euh, tëj nañ ko Sénégal jëflante yu bari yu mu doon jëflante ak réew instant bi dakkal nañ ko gis nga aéroport yi tëj nañ ko hôtel yu hôtel yi li mu doon dugal ci xaalis dugalatu ko ci xaalis économie réew mi mel ni jamono ji tey luñ jéng la maanaam mbirum koom ndax jàpp nga ne Sénégal dina gaaw a jugaat bu mbir mi sax jàllee. non lu la choc la choc la traumatisme euh, parce que boo xoolee yaa ci ginnaaw boobu lañ woon en Afrique Afrique perte na lu mat trois mille milliards de dollars trois semaines ci kon bul imaginer tey jii ñaata la Afrique ci euh, ci ab koom boo demee ci dëkk tubaab bi ñoo euh, ñoom ñu ngi rawati encore kon kon parce que ay milliards d'euros la ñuy perte par par dëkk kon loolu manque à gagner boo xamante ne bii kenn kenn kenn kenn kenn mënu ko xayma bon loolu boo boo seetloo loolu moo tax. plan de plan de résilience bi ñuy bi ñuy wax li nga xam ne moo jëm ci entreprise yi ngir ngir suqali leen ak li nga xam ne moo jëm ci euh, maanaam taw koom-koomu réew mi ba du ba du nasax ba du daanu. moo ci mhm. moo ci moo ci moo ci gën a bari. Mhm. boo gisee aussi président di lancer un appel pour que ñu annuler la dette loolu aussi moo tax parce que dette bi daf ñu daf boo jëlee réew mel ne Sénégal euh, c'est c'est c'est c'est deux milliards par par par jour donc xaalis bu du jeex la donc mais c'est sûr que choc la. choc la boo xamante ni bu ñu ci jógee dañuy dem euh, dañuy jëm ci récession économique même même kuréel saytu wàllu koom-koom nee nañu pour la première fois en vingt cinq ans Afrique maanaam croissance am day day day euh, day nekk ci suufu zéro maanaam koom-koom bi au lieu mu yokku dafay wàññeeku. Sénégal ñu ngi doon espérer six entre six et sept pour cent tey jii nee nañu ça va tourner autour entre quatre entre trois et quatre pour cent donc c'est c'est minimum quatre points de perdu. donc c'est choc la boo xamante ni bi nag ñëpp la métti ñooñu nga lim dana métti si ñoom trop ah secteur agricole bi parce que ñu ngi jëm ci nawet bi mais fi mu kenn tël tëru hmm. kenn kenn naka lay demee. donc ah, moom boo xoolee tamit soo xoolee tamit bitim réew li ñu doon dugal ci xaalis moodu moodu yi. mille milliards mille milliards. Hmm. mille milliards de francs CFA chaque année. mille milliards de francs CFA chaque année. donc loolu la te tey jii ñu ne ba Sénégal di di leen dimbale lu mat douze milliards loolu aussi manque à gagner la boo xamante ne bii kenn kenn xamul nu mu toll bon en espérant que moom foofa ñoom peut-être euh, d'ici un moment xaj na moom dund ko dana reprendre foofu ci ci ci Europe. te bon ñoom itam xañ na xaj na sax moom lu ne dana am lum mu jur mais foog naa ñi fa amatoon kayit ñu bare ba dañ leen may ay kayit liggéey a yomb parce tubaab yi seen euh, ah. accord mais mais mais boo xoolee euh, euh, Cheikh bi fi nga mhm. xam ne mooy bitim réew tey xam nga moodu moodu yi te xam nga tamit Touba bëri na ay moodu moodu taalibe yi mhm. Mhm. tey mel na ni jàngoro ji ba mu commencé am na moodu moodu yu bari yoo xamante ni bu ñu gisee ci réseaux sociaux yi ñoom dafa mel ni dañu leen di dañu leen di boddi naan ñoo ngi daw di dugg ci réew mi beneen bi tamit ñoo ngi wax ne moodu moodu yi ku ci wopp ji euh, ku ci wopp ji rey maara day taali bitim réew lañ lay denc loolu tamit mu mel ni neexu leen euh, yow yan dénkaan nga leen di jox wala yan xel nga leen di xelal. waaw d'abord d'abord dama leen marqué vraiment suma sama solidarité parce que parce que dañuy ay dañu ay jàmbaar euh, ndax ndax Sénégal bari na bari na ay dëkk yoo xamante ne bii dafa bari ñu ñu fa dëkk tukki Tuubaa gi lim léegi ci la fu mu ne Louga ci la Dakar bi am na mais foofa foofa dem fa day mel ni économie dëkk ba sax moodu moodu ñoo ko yor ñu ñu dugal également ci réew mi noonu mille milliards affaire bi am na ñu stigmatiser leen donc loolu vraiment di lu di lu betti di aussi parce que parce que nit boo boo ko yoree mënoon ko lu ne bañaloo ko dara dem ba ak ndogal dal la mu mel ne ku lay daw loolu aussi vraiment neexut ci xol neexut ci xol mais loolu lépp aussi nañ ko nañ ko dugal rek ci ci tiitaay yi nga xam ne bi mbir mi amee ni ngi tiit nañ ko. parce que xam nga moom ñu bari dafa am ñu tiit perte seen sang froid ba def ay erreur donc nañ ko nañ euh, euh, ko dugal foofu rek dawal ci dawal ci remandé kenn bañ cee jàppal kenn dara. mais c'est sûr que lu métti la ci ñoom lu métti la euh, te nag vraiment ñu leen marqué solidarité. te aussi dañ yàlla suturaal nañu foofu aussi la nga xam ne moo fa xaj na moo fa rot ci ay bakkani sénégalais xañ na par rapport ak la fa la ci ay tubaab xañ na bëriwul noona Hmm. waaye tew mbir mu metti la moo xamante ne vraiment ñu ngi leen di marqué suñu di di jaal ñi nga xam ne ñoo faatu na ñu si bari bari ay murid lañu ma am na parce que dañu waroon téléphoné ngir ñu dimbale la ngir ñu indi yi booba sax décision bi gën Ah, am na ci am na ñoo xam xam naa leen ah, donc muy lu métti métti. vraiment di ñaan mu mu jeexa mu jeexa. d'accord sëñ bi sànq yaa ngi doon wax ci li nga xamante ni mooy mooy bor bi bor bi nga xamante ni tey réewu Afrique yu bari ñoo ngi bëgg euh, ñu annuler dette bi mais soo xoolee euh, njiitu réewum Sénégal Macky Sall moom ñenn ñi sax euh, daan nañ koy tuddee caricature ko mel ni moom mooy avocat bi bor yooyu ndax jàpp nga ne nañ ko baal réewu Afrique yi. bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu waxandoo ci genn kàddu te dëgër ci. Euh, tubaab bi du ñu am pexe mais il faut nag ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp def ko seen combat. Euh, président du aw bi mais c'est le leader donc dafa jël leadership bi moo njëkk a lancé idée bi bi mu ko lancé également am am yeneen kilifa. waaw am yeneen kilifa yu jóg ko ay kilifa diine comme comme wax na ci njiitul France wax na ci am am yeneen économistes yu mag a mag a mag yoo xam ne wax nañ ci am na yeneen président africain yoo xam ne également reprendre idée barki dem rek Ouattara wax na ci donc euh, disons que mi ngi def son chemin. léegi nag li nga des moo di la société civile africaine ak ñun ñi nga xam ne ay citoyens africains lañu ñun ñëpp nag ñu jóg nag jàpp ci combat boobu xam ne bor bi lu ci bare bari c'est injuste parce que situation bi ñu dund tey ñu wax ko ak ñàkk wax lu ci bare bare bare bari suñu suñu néew doole ñoom ñoo ñu ko teg ñoo ñu ko teg léegi nag bu ñu demee nag ba lu mel ni am disons euh, ñetti at bi sëpp la ci am solo moo di ñoom ñu def preuve de solidarité ñu xam ne bor bi kat fay nañ ko suñu def ay rek moo ci des parce que boo dégg ñu wax toujours le service de la dette la ñuy wax ay intérêt rek ay intérêt dong la ñuy fay te kon nag loolu dafa dafa juste tey jii la surtout la jeunesse africaine jóg taxaw def ko sans combat boo ko def maintenant ci yi nga xamante ne ñoom ñooy seen njiit ñu xeex loolu ba ñu effacer dette bi xam ne c'est une dette injuste boo xam ne dañ koo teg Afrique maintenir ñu ci état bi nga xam ne ci na lañu ci la ñu nekk loolu nag ñun ñoo mën a fipp mais nag il faut ñu fippu mais buñ ko defut également le combat est perdu d'avance. d'accord il faut ñu jóg. léegi euh, euh, Cheikh bi li nga xamante ni tey moom mooy woppi coronavirus ji tey gis nañ ne wopp ji bi mu ñëwee ñu bari nee nañ ay faay yu bari. ci sunu euh, sunu réew mi feeñ na ci su côté éducation ndax fi àdduna toll tey éducation toll na foo xamante ni lu jëm ci université virtuelle yi am na nu ñu ko doon toppatooyee ak li nga xamante ni tey moo jëm ci bay loo xamante ni tey dana am lu ñu soxla duñ ko jëgaane fenn ci mbiru dundin sunu mbiru euh, fajo tamit euh, gis nañ ne structure sanitaire yi gis nañ ne bëri na tamit manqué na ay jumtukaay yu baree baree bari lan nga jàpp ne mën nañ koo jàngatee ci sunu réew bu jàngoro ji weesoo. non liñ ci jàngatee loolu ci biir jàngoro ji lañ ko tàmbalee. moo di ne choc la traumatisme la. mais également opportunité la opportunité pour ñu defaraat suñu suñu suñu jànguwaay wala wala ñu soppi orientation bi opportunité la aussi pour ñu defaraat suñu ay suñu ay kër docteur opportunité la aussi pour li nga xamante ne bi dañ koy jëfandikoo ci wàllu ci wàllu ñam ñu koy defaral euh, sunu bopp kon opportunité la ngir ñu am suñu autonomie ngir ñu moom suñu bopp ndax gis nañu ne tey jii bi nga xamante ne bii jàngoro ji déclaré ci àdduna ñëpp dañoo tëj seen frontière kenn moo mootu dem kenn kenn mootu da ñëw même ñi nga xam ne ngi doon jaay ay garab mooy ay médicaments sax nee nañu kat léegi dutuñu leen ko mën a jaay parce que ñun kon également opportunité la ñu taxaw suñu usines yoo xam ne médicaments yi nga xamante ne bii ñun lañ koy aajowoo ñu ko fi defaral suñu bopp kon jàngoro ji ci côté boobu lu baax la te loolu buñ ci taxawee ak fulla ak fayda bu ci yàlla àndee mën nañ ko defal euh, suñu bopp te foog naa ne fa la ñu jëm hmm? ñu réorienter également les les investissements te déjà président commencé na ko parce que moom jël na 64 milliards dinañ ko def ci wàllu ci wàllu santé bi tey jii tey jii xale yi am na ñoo xam ne am na ñoo xam ne ñu kon ñëw seen i cours eh, di ko di ko def ci di di ko def ci internet te am na am yoo xam ne ba léegi ñoom ñu ngi joxoon seen i cours def seen examen def seen lépp. mais bariwut ci réew mi te foog naa ne balaa mbir may jeex foofu la ñu jëm foofu la ñu jëm kon mën naa ne tawat ji am na opportunité yoo xam ne daf ko présenté te buñ ci jógee incha allah la xam ne moo moo moo amoon démb duutu amaat ëllëg ndax lii dañ cee jànge lu bari ndax tawat ji ñëw na ñëpp daw nañ bàyyi ñu bàyyi ñu suñu bopp kon nag bu ñu bàyyi suñu bopp nag suñu bopp boobu ñu bàyyi nag nañ ko jël en main nag defar ko. daa waaw euh, euh, Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaynde Fatma euh, fan yi ñu génn imaam ak ulema Sénégal dañoo def conférence de di sàkk couvre-feu bi ñu andi ko ba vingt une heures mu jeex quatre heures ba pare tamit waa ONG Jamra doon sàkk ñu ubbi jumaa yi ci li nga xam ne mooy koor gi lan moo ci sa gis-gis. non kooku moom man man man taalibe laa man lépp lu ñu ci wàllu diine moom man sama wàllu bopp sama gis-gis moo topp ci ndigal xalifa général des mourides waaye amul lu ma ci sakk amul lu ma ci wax amul lu ma ci def. d' accord loolu daal moom sëñ bi laa ci déglu lu bi wax rek loolu laa wax. d' accord léegi euh, euh, Cheikh Abdou Lahad Gaïndé Fatma fi nga xamante ni nag moom mooy Touba. dañoo gis ne euh, état d'urgence bi bu ñu ko teree transport inter interurbain bi région ak région gisoon nañ ne ñu bari ñoo ngi leen doon jox autorisation ñuy dugg Touba ak génn te boobee jàngoro ji euh, jàngoro ji boobu mën nañ ne jeexoon na Touba dalatu fa woon kenn bu passé ñi tëdd ci lal hôpitaux yi ndax yow yëgoon nga information que ne trafic bi ma ngi doon am ak ndax tamit defoon nga ci alerte. en tant que en tant que kilifa diine. waaw loolu dégg naa ko dégg naa loolu moom c' est c' est disons de notre république ñëpp ko dégg mais mais mais mais façade ko lañ ko annulé ministre dafa jël ses responsabilités tey ji autorisation yi ministre bi moom moo koy bu dul autorisation boo xam ne dafa jëm ci wàllu santé. maanaam koo xam ne malade xam ne dafa feebar ñu war ko ñu war ko évacuer wala malade boo xam ne daan jël ay rendez-vous périodiquement war a dem rendez bu lool loolu rek bu dul bu dee autorisation nii rek ministre bi moo seen bopp kon foog yoo xamante ne na au début rapidement euh, euh, corri euh, corrigé nañ ko xam ne dañu gestion de crise boo nekk gestion de crise nag am ñoo ne ci départ bi mën na la échappé mais li am solo rek mooy mooy nga gaaw a rattrapé loo xam mais donc loolu moom ça a été corrigé très rapidement comme ñi xam ne aussi dañ doon fraude di jël oto yi sans autorisation di aw ci yoonu suuf bi wala ñuy aw ci des voies détournées tappale tappale tappale ba dugg biir Ndakaaru loolu aussi bañ ko yëgee immédiatement disposition nga xam ne moom moom la ci forte doole war a jël jël nañ ko ci fi ñu toll nii du mën a de ndax forot moom xañ na mën a su ko tere ci àdduna si nga waxtu mi nga na bu baax a baax baax a baax a baax. mais mhm. mais situation bi bi ñu dund nii bi dund nii mais loolu moo ndi koy parce que jàngoro jeexoon na ci dëkk toog nañ fi lu ma jours yoo xamante ne bi benn ka amu fi ñu jékki-jékki ay dellusiwaat donc ñooñu doon dem ak dikk ñoo ñoo ñoo euh, ko fi parce que malheureusement mooy li ñu doon bañ moo tax moo tax encore une fois rek nañu nañu nañu respecté li nga xam ne moom la kilifa yi digle buñ ko defee rek sunu borom mën nañoo mën nañoo suturaal parce que tërëwuñ kenn ngir bu naxatal la tërëwuñ kenn ngir sonal la tërëwuñ kenn ngir soxate la dañ koy def yow mi ngi tere d'abord yow lañ bëgg a aar yow ci sa wàllu bopp. parce que boo jëlee bu tey bu fekkee da nga jël oto di ko jël ci quatre personnes yoo xam ne yow xamoon ci kenn ñoo xam ne bokkuñu fu ñu jógee nga nga bokk ak ñoom oto bi aj verre yi taal climatiseur bi xam nga jóge fii daw ba Ndakaaru di ñëwaat defaat la même chose di ko def tous les jours mais boo ko defee un moment yow ci yow kon bu ñu la ko teree maam sa yow ci sa wàllu bopp yow la ñuy yow la ñu bëgg a sàmm yow la ñu bëgg a aar sa kaaraange. kon ah. nit ñi nañ ko nañ ko gisee noonu mais defuñ ko ngir sonal kenn ñu xam ne lii nag euh, suñu kaw la dal ci ñun ñëpp kenn ku nekk boo am ñeent tey ji benn nga am ñun ñëpp ñoo ko yëgandoo waaye dañu muñ te xam ne nattu ci kaw jullit la ko suñu borom di teg bu ko tegee boo ko muñee rek incha allah bu mu jeex te bu jeex doo ñëw. waaw mais euh, Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma Touba jamono ji gis nañ ne cas communautaire yi bëri na trop ba xaw a jaaxal sax euh, waa kër docteur euh, jamono ji Touba tamit ñu bari ñoo ngi wax ne mbir mi mën naa ëppi loxo ndax yow njort nga ne du law. li ñu ñaan muy bañ a law te dana tax ngir mu bañ a law ndax lépp loo xam ne moom war nañ ko ca def parce que déjà sensibilisation bi reprendre nañ ko. ah reprendre nañ ko ñu ngi waxaat ñu wax nit ñi nit ñi aussi commencé nañ tiit commencé nañ tiit parce que boo boo wax gëwuma ko. ci yàgg benn waay boo xam ne yàgg moom yéen benn boutique mu dal ko xam nga moom gëwuma ko fa. mais Touba gëm ko jamono ji bu gëm ko laa Touba fi ne nii gëm nañ ko. ah bari na fi ñu ko gëm bari na fi ñu xam ñëpp dañu gëm yàlla sax ñëpp gëmuñu ko à 100 pour cent du dëgg. mais est-ce que yow. est-ce doon nii koo ci dégg mu ne góobu ko rek nekk ñu dem daaru maanaam du du du du la topp dañuy wax rek wala du góobu ko dem daaru maanaam seeti malade yi. dara déet sëñ bi kay nag bi est-ce que Touba est-ce ñuy takk masque fi mu ne am na ñuy takk masque mais est-ce que takk baax na parce que gis ñu ko jaay mbedd mi kooku aussi danger la am na ñoo xam ne dañuy essayer masque loolu aussi nañ ko moytu ah bi waru laal ak sa loxo ci ci ci ci ci fii dugg loolu lépp aussi pédagogie boo xam ne dañ ko war a defal nit ñi parce que même masque yooyu rek mën naa dem ba ni jëyee xam nga li ma la mm-hmm. ah bi xëy takk ko ba jant bi so fanaan ko xëyaat takkaat ko ba bi so loolu aussi axul masque boo ko takkee ñetti waxtu ba juróom waxtu selon masque bi ni mel da nga ko war a changer daal beneen am na yoo xam ne waras na ko mën a xooj am ndox mu am eau wala wala saabu am na ci yoo xam ne mënees ko da nga ko war a sànniwaat am na ñoo xam ne mën ngaa sànni masque sax ñu ñu ñu for ko ko. donc masque yi masque yi donc masque yi moom nit ñi ngi koy takk mais nag aussi ni leen jàggal ni nga xam ne noonu lañ ko war a takkee yan ti ay ñu wax ne aussi yan type de masque moo mo baax loolu aussi ñu koy def parce que parce que foog naa ne am na des masques normalisés yoo xamante ne bii génn nañ ko jox nañ ko tailleur yi. pour ñu defar ko ñu jaay ko nii si njëg goo xam ne njëg bu njëg yomb lay doon. mais euh, Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma yow en tant ministre conseil en tant kilifa diine ndax yow yaa ngi def ay sensibilisation Touba. ah si man maa ko njëkk maa ngi si ma ma ma maa njëkk a sol sama masque sol samay gants dem taxu fii ci wetu jumaa ji ci bunt ko di wax ak di séddale ay gel séddale ay saabu séddale ay eau de javel kooku sama responsabilité la. Eh, dem ci dem joxe lu bare bare bare bare ci daara yi dem ci orphelinat bi joxe fa. kër yi ma daan fi yëpp aussi fenn fu nekk aussi loo lépp loo mën jox naa leen ko képp képp ku ma sollicité aussi jox naa ko ah, def ci ay émission wax ci bu dul benn du ñaar may li may yow nii lépp aussi ci cadre boobu la donc kooku suñu responsabilité la li ci des aussi nag moo di lépp lu ñu mën a jàppale ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo jiite xeex bi muy waa kër docteur yi ci ci ci ay xalaat ci ay ci ay en tout cas voilà ci ak ak di leen jàppale également ci ci ngir ñu man a am li ñu bëgg loolu aussi ñu koy ñu koy def loolu moom suñu diggante ak ñoom lay doon. waaw euh, euh, ñu ngi ci. gis nañ xalif euh, général des mourides wax ci taalibe yi nga xamante ni jamono ji mënatuñoo génn ndax yow lan mooy tax ak jubluwaay bi ngay dem ci daara yi di leen yóbbul reer wala wala ay xéewal. non parce que daara yi mënatuñoo génn xam nga daara ñoom ñoo njëkk confiné ñëpp. ñu dolli benn benn xale yalwaanatu xaw ma xaw ma yaa ngi ko seetlu wala déet. waaw waaw ci Touba. Mhm. xale yalwaanatuñu comme ñu ne kat nañ leen fekk fañ toog jox leen na nga xam ne moom lañ la moom lañ laa wuti ci mbedd mi. loolu dañ ko def ngir ñu gën a mën a toog loolu lañ ci jublu ngir ngir gën leen a aar te te te xam nga ba am na ñoo xam ne mën nañoo jóg dem wuti dépense. Mhm. xale bu ndaw bi tokki daara ji ak seen daara bi ko jàngal moom mënut a génn wuti dépense. Mhm. kon boo kon bu ñu fekkul fa fa mu nekk rek dana métti ci moom. waaw ah. te loolu te loolu aussi xalif général des mourides na ci parce que bu dem gis nga euh, gis nga ndigal li mu joxe daal ne maa ngi digal mbooleem mbokki jullit yëpp ñu dimbali daara yi képp kuy demee daara na ko dimbali. Ah. kon day mel ne ñooñu ñoo gën a sonn. Euh, d'accord loolu ma et puis et nga xam nga aussi dëkk bi moom dëkk bi un million man un million cinq kenn nit mënut a dimbali ñëpp kon li am solo rek mooy nga nga am cible cible bu ne nga jëm ci impact. bu ñëpp defee noonu rek foog naa ne dina dina eh, dina am njëriñ mais sinon li ngay def dafay tasaaroo te eh, du feeñ. waaw mais euh, euh, ministre euh, conseiller Cheikh Abdoulaye Mbacké Ndéphane ma gis nañ ne. fës nga lool ci mbirum sensibilisation gi fës nga lool ci mbirum dimbale askan bi Touba tamit ñu bari ñoo ngi génn waaye mbir mi amul daray politique yuñ si rax. ci ban côté. fës bi génn fii joxe fii. woo presse bi waaw. wala Touba ni ñu koy defee ak ci même budul Touba même budul Touba même budul Touba ci yeneen régions yi aussi gis nañ ko ñu baree bari di génn non non fii de amu fi fii vraiment fii amu fii wax ñëpp jóg euh, man man sa wàllu bopp pour éviter loolu pour éviter loolu li may li may li may def nii daara yi étudiants yi laa ko jox étudiants yi mooy étudiants ayet yooyu ñoom laa ko jox ñoom ñoo ko yóbbu benn politicien du ci ànd la doon njëkk a def itam waa conseil communal laa ko doon defal nga xam ne c'est la jeunesse c'est la jeunesse de Touba bu du jeune si benn parti politique pour éviter rek coow yu mel noonu laa ci laa ci laa ci jublu woon. d'accord def nii aussi étudiants yi ñoo ko yóbbul. nga xam ne même ma gën a jekk ci wàllu politique sax ñoom dañuy jekki-jekki rek gis étudiants yi publié daan danañ barab sàngam parce que jàngoro gi dafa doy waar donc fi mu toll nii maanaam yooyu considération c'est secondaire ah yooyu considération c'est secondaire fi mu toll ah, maam li war a bala ngay ne fa kenn ku nekk maam rawale sa bakkan nga tal <laughs> bala ngay bala ngay bala ngay wax leneen mais mais mais sëñ bi yow ci sëñ yow uh, ci mairie bi nga nekk mairie Touba. waaw lan ngeen def mairie bi yéen lan ngeen def. génn ah, ci ndimbal bon man a fekkuma ma ko woon doomu woon. mais mairie bi def na dara wala deful dara. doomu woon woo nañ ma. convoqué nañ ma jot naa convocation bàyyi nañu message téléphone woo nañ ma téléphone mais vraiment amu ci benn réunion boo xam ne aussi te ma man maa préféré aussi bañ caa dem nag. lu tax. Euh, dara c'est personnel. c'est personnel bëgguma mën a dem daal. d'accord jërë ngeen jëf mbokk yéen a ngi déglu rajo Rewmi FM seen mission pencum réew mi muy am euh, samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h tey ñu invité Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma ministre conseil sëriñ bi Touba ka euh, communautaire yi bëri na ñu bëri amee fi euh, jàngoro ji marché bi nga xamante ni tey moo ëpp Touba di marché Ocass ak yeneen marché ñu tëj ko loolu yow lan moo ci sa xalaat ndax du indi gàllankoor si nit ñi fa doon xëy. non farata la dafay farata parce que xam nga marché boo seetloo ca gannaaw war na man un mois le vingt six bale passé eh, demoon nañ fa euh, bale ko boobu man boobu man la woon ma fa demoon maire Suba àndoon na ci UCG euh, àndoon na ci ak ak ak Touba ci kanam na ci ak les délégués de quartier ak l'association des commerçants industriels du Sénégal ACIS donc ñu ñu ñun ñoo ñoo booloo suñu doole dem. raxas marché bi ba mu set bale ko ba mu set euh, Touba ci kanam également jënd produit jox ko service d'hygiène service d'hygiène euh, pompé ko loolu defoon nañ ko il y a un mois. dañ koy def itam euh, commerçant yi vraiment àndoon nañ ca parce que dañoo dañ accepté woon tëj benn alxames boo xam ne tijji wuñu woon seen place aussi ñoom ñoo ko baleelu seen bopp loolu defoon nañ ko. ci aju bi ñun ñu dem def opération aju guddi aju bi jàpp samedi ñu ñu ñu pompé ko mais bu ñu bu ñu xoolee tey jii ci seize cas communautaires yi nga xam ne moo moo fi feeñ ci ci fan yi lu ci ëpp ëpp ëpp ëpp te marché ba la jógee directement wala mu jógee fa indirectement ndax ay nit ay dañu doon ay nit ñoo xam dañuy jëflante ak waa marché ba yor ay place feneen donc ñoo ngi lay dal kon nag responsabilité également autorités sanitaires yi moo nekkoon ñu wax kilifa yi ne leen marché bi nañu ko tëj pomp ko defar ko soo ko tijjiwaat maanaam jël décision tëj marché bi carrément ñetti fan yoo xam ne ñoo ko ñoo ko ci pompe bu ko pompe ba ñetti fan yi jàll ñu bàyyi ñi nga xam ne dañuy jaay ay lekk ak yu mun mënta ñàkk ñu tijji commencé waat seen liggéey ñi ki des ñëwaat une semaine après donc loolu mooy mooy décision bi te métti na mais nag beneen décision jàpp naa ne mënutoon a gën bii décision parce que c'est une question de responsabilité parce que bu ñu demee ba ay ba ba ay bakkan nekk en jeu bu ñu demee ba ay nit di tawat bu ñu demee aussi ba ba ba comme neex ne nga ne ñeme naa waaye yow boo ñemee aussi mën ngaa wàll keneen koo xam ne moom ñemewul te kooku sañ naa aar boppam su boobaa nag duñu seet loo xamante ne bii dañ naan kat lii métti na wala méttiwul mais dañuy def li nga xamante ne bii mooy li mooy li ñu war a def mooy li te marché bi kenn du fi def dara comme ci dëkk bi yëpp te dama bëgg sëriñ ba ndax dëkk bi lépp lépp lépp lañ njëkk sëñ bi wax ko ko sëñ bi jox li ndigal ñu soog ko tëj ba sëñ bi doon bokkante ñu kenn ko tëj mais sëñ bi dafa am dafa am yërmande eh, ci nit ñi moom sax moo insisté daal na ko nañ bàyyi ñee jaay lekk ñu continuer di jaay seenum njaay loolu ba tax ñoom ñetti fan rek lañ koy tëj la temps que ñu raxas mais ñi nga xamante ne bii vraiment képp koo xam ne nga jaay ay télévision wala nga jaay ay lal wala nga jaay ay ay ay ay kooku wala ay yére te heure bi nga xam ne yoo xam ne kenn te jënd loolu nga xam ne même yow boo tijjee ba jant bi sax doo gis kenn donc kooku vraiment mën ngaa man ngaa mën ngaa bàyyi nag ñi nga xam ne day jaay ñay jaay lekk ñu ko ne di fa jaay parce que lekk aussi mënut a ñàkk loolu mu wut a taxaw mhm. léegi ah, ah, bu baax la li nga xamante ni tamit moom mooy euh, médecin chef bi dégg naa ko fan yële mu ne marché Ocass dañ ko war a tëj waaye tamit euh, trafic bi diggante Touba ak Mbacké tamit dañ ko war a dakkal ndax tamit loolu jàpp nga ne trafic boobu mesure bu bu jaar yoon dafa dafa war a dakk dafa war a dakk dafa war a dakk te na ci loo xam ne les autorités locales de Mbacké ñoom ñoo ko war a def ñoom ñoo ko a def parce que Mbacké amutoon cas tey ji am na cas ñoom ñoo ko a def parce que transport bi vecteur de transmission la buñ ko waxee moom la buñ ko waxul moom la c'est ça la vérité donc képp koo xam ne doxoo len lenn loo xam ne du farata da ngaa war a maanaam da loolu da war a bàyyi waaye dugg fii oto rek ne maa ngi dem Mbacké ñëwaat fekk la nga fay dox mën naa xaar. te diggante bi mën nga fee loru mën nga fee lore loolu vraiment mën naa ñàkk. Mhm. Ah, loolu mën naa ñàkk. donc dafa am loo xam ne aussi faw faw ñu tenir un langage de vérité parce que dañu nekk dans des moments critiques de vie ou de mort xam nga donc il faut il faut ñu waxante dëgg waruñoo neexal nit ñi wala ñu topp lañ li xam ne moom la ñu bëgg il faut ñu wax leen dëgg bu ñu ko defoon bu ñu ko defoon mais écoutez ñun fi ñu toog nii mais merci ñu toog fii c'est ça la vérité. Mhm. foofu foofu la situation bi toll. waaw mais mais sëñ bi leen leeral. mais mais bu leen leeralee. waaw bu ñu leen leeralee bu ñu leen ba noppi. jël décision yi nga xam ne mooy décision yi moom la war a jël maintenant lépp ci yërmaane nag ñu toftal ko ca. waaw mais euh, Cheikh Abdou Lahad Gaïndé Fatma li nga xam ne moom lañu seetlu tamit ci Touba mooy euh, journaliste bu bindee sax ne Touba am na cinq ka communautaire sax ñu gis ne ñoom dañuy jàpp ne dañ leen a bëgg a diaboliser wala dañ leen a bëgg dañ leen a bëgg a ŋàññi gis-gis boobu ci ñenn ñi lan nga jàpp ne moo ko waral. non non li ko li li ko war a may dañu toll dañu de grande émotion. tey jii tey jii mën la wax de buñ bu ñu wax en langage disons populaire dañuy wax ne euh, tension yëpp a jóg foofu la ñu fi toll comprendre li ma la mm-hmm. te y a des titres am c'est la vérité. Mm-hmm. quand tu écris Touba Mbacké l'axe du mal. Mm-hmm. mais mais c'est quoi ça c'est la provocation. c'est vérité. donc loolu loolu loolu loolu loolu mooy déggoo boo bindee Touba Mbacké l'axe du mal. su ko defee nga nga eh, nga xam loolu la nga xamante ne bii moom la moom la moom la wund euh, par la par le passé. Hmm. ak ñi nga xam ne ñoo euh, euh, ñoom la ko George Bush daan daan daan woye wala wala wala même lors des croisades dans dans dans l'histoire mais loolu quand même nekkul ci xol. Ah, kon expression bu yàgg la. mais oui bi yàgg la George Bush George Bush bi attaqué ay ay ay Iran yooyu noonu la tuddewoon. ak du mal ah du ñu attaqué ay Irak yu mel noonu yooyu la woon naan l'histoire aussi donc loo loo découragé là on parle de d'axe du mal donc ah, ah. c'est une expression historique donc extrêmement chargée donc loolu bu baat baat meloon boo ko jëfandikoo mais c'est normal li ñuy mer et puis et gis nga xam lu muy jur gis nga gis nga bi ñu commencé bi ñu fi tàmbali bi ñu fi tàmbali et puis boo boo xoolee toujours dafay dafay euh, maanaam waxtu yi wax yu mel noonu ak heure bi kaay di bari à Touba dafay dend gis nga hmm. est-ce que bi muy commencé dafa tam la ñu stigmatiser euh, disons Touba bi ñu ko stigmatiser waa Touba daal di bifu parce que nit ki boo ko boo ko stigmatiser disons tu perds son soutien doo ko mën a mobiliser ci dara day bàyyeeku est-ce que xam nga li ma la wax. xam naa bu comprendre donc loolu moo amoon au début. am na ay wax yu fi am am na wax yu ay wax yu amoon bëgguma ci dèjà parce que parce que jàpp naa ne weesu na gis nga temps ñu commencé waxaat yi aussi nit ñi daal di rebelle wu waat bu ñu rebelle à chaque fois bu nit ñi bu bu nit ñi rebelle woo rek kaay day yokku parce que nit ñi il cesse de collaborer. d' accord mais mais euh, Cheikh Abdou Lahad Gaïndé Fatma ministre conseil kon yow euh, titre boobu noonu euh, Touba Mbacké axe du mal bi nga ko liiree naqari woon na la. non man am naa niveau de compréhension boo xam ne permettre na li nga xam ne moom may naqari bariwul parce que sama passe-passe kenn mënu koo laal parce que loo mën a wax ci wax ci kanam loo mën a wax ci loo loo loo mën wax ci Touba ak feneen itam xam nga man loolu du wàññi dara dara dara ci sama passe-passe mais mais mais mais kooku niveau de compréhension la mais am na ñoo xam ne loolu ñu mënuñu mënuñu koo muñ mënuñu koo muñ boo ko waxee tu les perds tout de suite et que immédiatement également dañuy jël seen xalima commencé la tontu. commencé laa commencé jëflante ak yow personnellement man li sama position moo di ne benn organe de presse wala benn journaliste mérité wut yoonu mu jóg di ko di ko di ko di man loolu mooy sama position personnelle am na ñoo ma bëgg dama xam ma ne hey man jàpp naa ne benn journaliste mérité wut ñun ñu dajaloo def réunion di wax ci moom il ne mérite pas moi c'est moi ces gens-là je les traite par le mépris c'est ça ma position personnelle mais am na ñoo xam ne loolu nekkul seen position am na ñoo xam ne seen position mooy defante. jërëjëf donc voilà. Euh, jërëjëf euh, Cheikh Abdoulaye Mbacke Gaïndé Fatma mbokk yéen a ngi déglu euh, seen émission pencum réew mi émission bi sax li si des bëreetul sëñ bi koor gi ak li nga xamante ni tey mooy couvre-feu bi balay koor gi sax couvre-feu bi ndax tuuba respecté nañ ko. ndax gis nañ ne ndax gis nañ ne fu mel ni Dakar fu mel ni ay Médina yooyu euh, am na si ndaw ñu bari ñoo xam ne tegoon nañ leen loxo ndax yow Touba jàpp nga ne respecté nañ ko bu vingt heures jotee ñëpp dugg seen kër non nañ ko parce que fii aussi ay nit ñu responsable ñoo fi dëkk nit xam seen bopp Euh, fi mu toll nii huit heures doo gis kenn ci mbedd yi ñëpp ñëpp a ngi toog seen kër di di waxtaan sauf ñi nga xam ne am nañ autorisation donc circuler mais sinon ñeneen ñëpp aussi ñu ngi ngi ñu ngi toog seen kër bon ci tàmbali bi nag am ñoo xam ne parce que am na ñoo xam ne xamuñ lan mooy couvre-feu ndax couvre-feu bi foog a jël en 1988 booba xale booba xale yi dox nii bare bare bare juddaguñ wala booba en tout cas ay ndaw la ñoom pour comprendre. mais fi mu foog naa ne nit ñi xam nañ ko comprendre nañ xam ne également pour lu gën ci ñoom la nangu nañ ko taw nañ seen i kër di bu xëyee ndox la ñuy dox lépp te dox guddi bi sax rek dafa dafa amul njariñ. Mhm. d'accord waaw mais dañoo déglu président fan yi jàll président Macky Sall mu wax ne ci benn euh, France 24 ak RFI wax na ko tamit Figaro mu ne euh, cas yi am na nu muy yokkee Sénégal mën naa def confinement sans mu si yox yoxi loolu yow jàpp nga ne confinement Sénégal ak ni mu tëddee ndax bu ñu confiné woon nit ñi jafe-jafe du gën a am. na ñaan yàlla ba ñàgg foofu parce que parce que la lam wax na ne bu da ne bu ko bu ko jaree dañ daa daañu ko def mais na ñaan na ñaan yàlla bañ ko jar na ngi def ba bañ ko jar nag mooy yoon wi ñu nekk ñu continuer ko continuer nekk benn d'abord euh, di di di di di xeex jàngoro ji buñ ko defee rek foog naa ne duñu duñu àgg foofa. mais tey jii président moom ci mbir mi ses principaux conseillers mooy ñi nga xam ne ñooy waa kër docteur spécialiste yi ñooñu tey jii te foo dem ci àdduna si aussi ñooñu ñooy joxe les bonnes informations au décideurs ñooñu soog a xool xam lool kat naka naka la ko mettre en application donc euh, mais nañu ñaan yàlla daal ba ñu àgg foofa nañu loolu nag lañu koy may mooy ñu continuer di fagaru. di ko xeex ni ñu koy xeexee bañ koo sabantal di moytu ak nag di ñaan yàlla suñu borom jëli ko fi ci weer koru tedd bi nga xamante ne bii eh, ñu ngi ciy dugg. mais jàpp nga ne du am benn benn gàllankoor ndax tey euh, am na sénégalais yu bëree bëri euh, fii ci Dakar benn benn reportage bu ma déglu ñu ne koor gi ak couvre-feu ak jamono joo xamante ni réew mi metti na ñu bëri euh, yoruñu xaalis marché yi ñu bari fi lañ doon liggéeyee loolu lépp ñu daal di koy tëj kooru ren gi ndax jafe-jafe yu jàppoo ne dina gën a tar wala ndax jàpp nga ne. dafay metti année blanche la. année blanche pour tout le monde da ngay xool état Sénégal tey jii euh, li mu doon am boo xaajee ñeent benn xaaj bi la def ci euh, la def ci mbas mi tey jii li nga xam ne doon na ko am ci ay recette maanaam imaginel tey ñaat lay perte ca loola kenn xamul nu mu toll tey ki ji ëpp lu mu perte mooy état bi kon kenn ku ne ñun ñëw aussi la même chose yow moom doon defar journal di ko di ko jaay ñoo ko daan jën duñ ko jën te doon transporté ñu ci daa dugg duggutuñ ca. ka doon jaay également ya daa jënd jëndatuñu kon ci ñëpp ñëpp ñëpp la metti ca kaw ba ci suuf même sëriñ si sax mën ngaa wax ne euh, daayira yi siyaaretuñ parce que fi na li mbooloo yi dajeetuñu donc mën naa la wax ne amul benn couche population boo xamante ne bii mbir mi épargné la dafa dafa ñëw dal dalandoo ci sunu sunu kaw xëy na sax loolu moo sabab solidarité bi nga xam ne am nañ ko ci suñu biir euh, ba yàlla ba yàlla sabab ñu mën koo ñu mën ko dékkoo ni ñu koy ni ñu koy dékkoo mais même tey jii même tey ku ñu permettre ngay tijji di jaay itam mën ngaa xëy ba ngant bi soo doo gis ku leen sëñ bi ñaata c'est ça la réalité donc loolu mooy li nekk kon nag te bala ngay naan ne fa da xool ki nga xam ne eh, neloon na ci yàlla ko yàlla yërëm de ki dem ñu ne dafa amoon contact ak ak ku mu na ñu woo ko deux fois ko mu ne man gisuma ko fekk gisoon na ko gisoon borom lor ko aussi xam nga baaxul du dëgg. Mhm. yu mel noonu lañ war a kon ñun ñëpp rek nañu nañu moytu ñaan yàlla bu jàngoro ji jeex fekk ñu fi ñu nekk en bonne santé dara bañ ñoo jot ñu mën a disons dafawaat li nga xamante ne bii ñàkkoon nañ ko xam ne natt la te natt boo ko muñee bu reprendre yëf yi dafay gën a neex yëf yi dafay gën a baax xew yi dafay euh, yokk dafay gën a bari uh-huh. waaye nag ku ci sàggan ba ba ba dara dal la ci te wuñ ko kenn su boobaa foog naa la ko doon dabu du du ko jar daa daa mel ni ku taxaw am néegam di lakk mais boo ko téewu day daw dugg ci biir néeg ba Mm-hmm. am na fi képp ku sam nit lekk dañ la téye parce que bu da ngay daw dugg ci biir ne foog ne am parce que am am nga lu cher lu fa ne da ngay jàpp ne ko duggee boo mu ci lakk nga ngay des kon kon ñu la téye téyewuñ la ngir sa alal lakk dañ lay téye ngir sauver sa bakkan xam ne li yow yaa ko liggéey yoon te boo dundee da nga koy liggéeyaat d'accord ñu dara parce que adduna mi ngi suñu kanam la ñaan yàlla rek nekk. Ah, euh, tey tey la priorité. c'est mm-hmm. la santé c'est la santé loolu il faut ñu xam ko. demal tey ci réew tubaab bi ah yow ndaw nga yaa ngi suivre li li li li xew au plan sportif ana Jeux olympiques yi dañ ko tuxal. Mhm. Ligue des champions c' est combien de milliards d' coupe d' bi. c' est combien de milliards d' euros. Mhm. les championnats c' est de milliards d' euros. mais voilà léegi euh, Cheikh Abdoulaye Mbacké Gaïndé Fatma ministre conseil lan ngay tàggoo ak yan kàddu moom ngay ñaax euh, askan wi nga xamante ni tey ñoo nekk Touba te ñu gis ne kaa yi xaw na xaw na faa bëri lu jëm ci wàllum euh, fas yéene wàccoo ak li nga xamante ni moom la waa kër docteur wax. waaw damay damay damay masawu mbooleem Sénégal gépp ci li nga xam ne dal na ci dal ak suñ kaw te li ma wax léegi ci ñun ñëpp la la dalandoo di ñaan yàlla rek mu mu jeexal ko di ñaax aussi nit ñi ñu ñu ñu dollee fagaru. di ñaan nit ñu ñu gën a moytu di ñaan nit ñi aussi xam naa ñi ngi doon muñ lu lu bare bari waaye rek nañ ko nañ ko yokk na inna allaha maa sabirin di di di ñaan nit ñi rek dina xamal ne décision yi nga xamante ne bi kilifa yi ñu ngi koy jël moo xam suñu kilifa diine la moo xam moo moo moo xam ñi jiite réew mi lépp jubluwuñ ci lenn lu dul rek nit ñi mucc ndax tey jii loolu dong dong dong dong dong mooy li nga xam ne mooy li mooy li ñun ñëpp teg suñ kanam mooy fexe ba nit ñu mucc bu nit ñi ba noppi nag ci la ñuy soog seet alal ji ak koom mi naka lañ koy euh, muccalee ndax loolu moom ne wax léegi ku dund ñàkk ko dara lépp lu ci waaye ñàkk bu mbir mi jàllee incha allahu rabbi da nga ko da nga ko amaat di sant nag ñi nga xam ne ñëpp jàpp nañ ci jàpp nañ ci mbir mi ñi nga xam ne ñu ngi ciy jàpp ñu ci jiitu moo suñu kilifa diine yi ci sensibilisation bi ñuy def ak ni ñuy accompagner talibé yi ak ni xam ne noonu ñu nekkee ci seen wet ak ni ñu leen dëfale ak ak ñaan yi nga xam ne ñu ko ñaan réew mi di sant aussi le président de la république ci décision courageuse yi xam ne aussi jël na ko dans un contexte extrêmement difficile di sant également toute l'opposition réunie ci li nga xam ne également noonu lañ ko wujjoon noonu lañ ko jàppe aussi noonu lañ ko mayee jàmm bàyyi ko mu déroulé c'est important aussi parce que moom nañ ko sonal te bu ko sonaloon yëf yi euh, a sooxe yéen la presse également vous jouez un rôle extrêmement important yéen ñëpp toute la presse di leen sant di ñaax ñenn ñi rek ñu moytu yenn ne bii dafay dafay dafay sappe disons l'unité bi nga xam ne tey moom la ñu am pour xeex mbas mi te ndax tey jii ñun ñëpp ñoo bokk camp bu ñu nekk mooy camp wu sauver li nga xamante ne bii mooy nit ñi ci mbas mi nga xam ne dal na suñu kaw kon bu kenn stigmatiser kenn bu kenn def bu kenn dépassé kenn bu kenn wax kenn baat boo xam ne euh, mën naa yee finn wala mu yëkkati finn wala mu indi ay tontonte yoo xamante ne bii day tax ba ñu fàtte li nga xam ne moo ngi taxoon a jóg. bu ñu defee loolu rek suñu borom mën nañoo dimbali di ñaan yàlla mu aar Sénégal di ñaan yàlla mu aar. jërëjëf euh, Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma euh, ministre conseil moom la ñu invité woon tey seen émission pencum réew mi ci rajo réew mi FM mu yam samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ngeen di sànd ak euh, Abdou Khadre Seck ñu leen di jox dig daje samedi bi di ñëw jërë ngeen jëf.